dañoo fas yéene delloowaat kàddu lu làmb ndax boobu ngeen di amee ay rubrique am solo. asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV nuyu naa leen ziar leen tey nag xam ngeen ne ñu ngi ci alxames premier juillet mille vingt et ñu leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen li may def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu yëglikaay li ñu indi ci wàllum làmb ñu dikkaat ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. jeudi premier juillet deux mille vingt et un dañuy ñëw ak ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu làmb tey xëy mu njëkk fa mu ca xëy génn. fenn la li nga xam ne démb moo amoon fa nga xam ne moo doon ca stade Iba Mar Diop sunu làmb moom la xëy tiitare yëglikaay bi nga xam ne moo di les arènes tamit ñëw na ci mu nekkoon benn jàkkaarloo boo xam ne bu metti woon bu neexoon lool tàngoon lool doxoon ci diggante si Siteu ak Papa Sow que organiser lamb yooyu nag di Pape Abdou Fall borom Paf production combat ba tamit yëglikaay ba mu ngi xamal ne daal le premier la war a am ci arène nationale mel ni ki nag démb moom balaa le premier août arbitre di siffle ñoom ñaari mbëri démb ku ci nekk wax nga ak sa morom moo xam boo demee fa nga xam ne ni moo di ci Equivox la wala nga dellusiwaat ci làmb ka nga xam ne nag moo di papa moom dafa waat ne na ko setta xool naa la bu baax a baax a baax jàngat naa la bi nga jógee fecc rek laa xam ne yow mii ab liggéey nekkut ci yow dara dara liggéeyoo ko waxi kese nga fi indi daal di ko waatal ne ko lu mën a xew dama lay daan te mënoo bañ loolu setta ne ko papa yaa nax sa bopp doole xool ma ni ma mel bu ma la tàncee te papa soo ma naree teree dem dama lay agressé lii mooy waxi Siteu kon daal mu mel ni kon Pape Abdou Fall daal maanaam su bëggee dégg dëgg combat ba moom nar naa métti ba yegg ci lool lool lool bu nu continuer ba tey ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ñeneen ñoo xam ne nii moom seeni combat ñëw na ba pare jàppal Gris 2 ak nga xam ne ni moo di Abdou Diouf combat ba nag dimanche ji ñu jëm lay am ci arène national yëglikaay bi xëy na tey dik ci Pape Alène Mbaye moom la mu gis mu ba nekk wal fa na bu dee ci côté bëre la daal Gris 2 la jox favori waaye xeex bi moom nee na Abdou daal moom la jàpp ne moom ci côté xeex moom moo jiitu loolu nag du sama ay wax waxi ka nga xam ne moo di Pape Alioune Mbaye la moom moo def boobu jàngat mel ni ki bu nu continuer ba tey ca dimanche jooja fa nga xam ne moo di ca stadium Iba Mar Diop Assane Ndiaye tamit day ñëw de ak combat boo xam ne bu naram metti lay doon war a dox ci diggante mbay guy gi ak ka nga xam ne nii moom moo di mambal la borom tab 5 foofa tamit Sawru Fall di ab manager la mu fa gis ne na lenn dong nga am maanaam ñoom ñaari mbëri daal Sawru ne na kii nga xam ne moo di Mame la bu ñu dee xool ci wàllum favori moom ne na moom moo moo d'avancé mbay guy gi waaye nag ne na bëriwut de la mu ko lombe la mu wala boog la mu nekk favori ci kanamam Sawru Fall daal daa jàpp ne bëriwul lu tuutee tuuti la waaye loo ci mën a dégg daal moom mooy favori wu combat ba yëgli ba moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu fils de Balla digganteem ak général Malika itam mel ni ki nag combat ba moom loo ci mën a dégg de guerre de force loo mën a dégg daal combat moom am dina ko def yëglikaay ba xëy na tey ñëwoon ñu ci am na loo xam ne tamit ab conférence de presse la wala ab jàkkaarloo bu war a am ci diggante xoyantaan ak Baye Mandione yëglekaay bi di eh, sunu làmb nag xëy na tey dikkal ñu ci waaye mbir ma nag daa mel ni suba ci àjjuma ji daal la nar a am fa nga xam ne nag moo di ca Parcelles Assainies ca siège Amadou Baba daal fa lañ fas yéenee daje ak seen parrain ba nga xam ne moom moo di Papis Demba Cissé yëglekaay ba moo xëy tey ñëw dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu waaye samedi ji itam day maanaam yëglekaay bi ñëw na ca tuus dinu xamal ne daal ki nga xam ne nii moo di mbay yi ki ni moom moom maanaam stadium Iba Mar Diop la jëm ak combat yoo xam ne yu nar a neex la bokk na ci Cheikh Tidiane Niang ak ka nga xam ne nii moom moo di ndongolo Cheikh Tidiane Niang ma nekk fa nga xam ne moom moo di dóor dóoraat ak ndongolo ma nga xam ne nag mu nga faa nga xam ne moo di sàkku xam-xam mel ni ki daal loolu moom soo bëggee dégg dëgg fa nga xam ne nii daal fa muy amee moom moo di ca fa nga xam ne moo di stadium Iba Mar Diop waaye de ziga ak këram tamit day am mel ni kon daal soo bëggee dégg dëgg moom weekend bi nar naa tar lool lool waaye leneen loo xam ne yëglikaay bi xëy na tey di ñu ko wax muy open press su Modou Lo Modou Dia Modou Dia daal mooy def open press sam ci mardi jii nu jëm yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy di ñu ko wax loola nag ka fa jaar du kenn ku dul ka nga xam ne moo di prince si soxo moom moo tëgg boobu combat yëglikaay bi xëy na tey dikk ci lool bu buñ fa jógee dañuy dem les arènes les arènes moom mel ni ki Papa ak Siteu itam ñu nga waat fa de mel ni ki daal ñaari mbër yi moom démb ah yëngal nañu stadium Iba Mar Diop ba mu yëngut public ba tamit daggoon nañu ay billets ñëw seetaan mooy loo xam ne lu bees teq la dem innovation boo xam ne promoteurs yi léegi ñoo ko indi maanaam face à face yi moom léegi maanaam da ngay fay door koo seetaan te itam sécurité total amoon na fa Sidi jot ñëw yëngal fa moo ka nga xam ne ni moom moo de di Ngaaka Blindé bu géeja way yëglikaay bi moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii moom daa génnoon démb wax waaye daa mel ni tontu nañ ko ba mu saf saf muy Balla Gaye numéro 2 parce que nag la mu waxoon Bombardier daal noonu na ko daal lu am ba des mooy bu nu ca yeggee duma yema la na duma moom maanaam bu nu ca yeggee moom danaa la wulli ba nga mel ne ab der tey itam loolu mënoo ko bañ loolu la ko la waxoon démb Bombardier nag xëy na tey tontu ko ci les arènes lam ko xamal daal na na ko Balla lépp ba mu des duma na na ko wàllam xeex moom boo ko xalaat ak i duma man du ko mooy maanaam nekkuma ku ñuy duma na na ko tamit man Bombardier nekkuma mbër moo xam ne nii daal dañ may imposé ab timing maanaam naan ma ci minute yi la ñuy bëri wala ci minute yaa ba ma jëne na ko déedéet loolu bu ko xalaat te itam ne ko yemu maak yow ci lool de na ko Balla jàppal lii ma lay wax man du ma arrière centimètre pour dellu ginnaaw Bombardier ne ko bu ko xalaat kon kay jàppal ne moom wullu yooyu ngay wax yow laa ko na a def maanaam daal mel ni kon foofu moom fi mu nekk nii xat na lool defante baa nga mel ni tulli ak màlle ci yëglikaay ba loolu yëglikaay bi moo xëy ñëw dina wax lu mel ni ki noonu ba tey yëglikaay ba nga xam ne moom moo di les arènes Laurent Gomis di secrétaire général parcelle mbooloo ga nga xam ne fa la nekk wala boog mu nekkoon fa maanaam fi mu nekk ni ku ne xam ne diggante Franc ak waa parcelle mbooloo coow la mu nga mel ni tulleeg màlle ci dem ak Franc Franc ki nga xam ne nag moom moo di Laurent Gomis moom la mu xëy xamle nee na Franc daal coow li lépp moo ko guddal nee na moom li nu koy toppe na ko def ndax su ko deful nag bëre moom dootu ko def maanaam seen xaalis bi ñu koy laaj muy dem gi nga xam ne moom la war a dem te itam dem nga aw yoon topp ko ngir mu war a joxe ñaari million wala boog deux millions yoo xam ne daal yu moyen la ne ne lii moom su ko joxee njoorawaal jàmm fu ko neex na fa dem waaye neen su ko deful moom pour mu bëreetu ne na loolu dootu nu ko négocier du samay wax nag Laurent Gomis moo xëy tey wax loolu nee na itam bokk na ci li gën a indil frappe problème te écrit ba la tax mu mu gën di dem ne na leen la bëggoon te loolu duñ ko def tey suba waxi noppi ne na seen coach su ba nga xam ne moo dem am lees moom la Franc bëggoon ñu dàq ko te ne na loolu ñoom xalaatuñ ko tey suba waxi noppi Laurent Gomis moom moo waxe nu mel ni ki noonu ne na nag Franc ñi koy jàppal tànn di ko gunge ci lii muy def ne na dañ koy jay dong di ko dugal ci loo xam ne ay erreur la ne na Franc li ko yoon toppe wala li mu war a def na ko def su ko defee fu ko neex na fa fanaane du sama ay wax wax yi ñeneen ñoo xam ne nii tamit wala keneen koo xam ne moom am na ay défi yu koy xaar muy Gris 2 digganteem ak Abdou Diouf yëglikaay ba nee na ñetti défi bokk na ca yoo xam ne mu ngi koy xaar bokk na ci daal fexe am victoire ngir ngir jógaat waaye itam jëlal mag ja ramas muy Gris Bordeaux nga xam ne Abdou Diouf da koo daanoon ak itam leneen loo xam ne première yi victoire bu mag ci Fass Ndakaaru nga xam ne bi ñu fusionné yàggul kon mu mel ni ki daal waa Fass tamit weekend bi loo ci mën a dégg bu général bu général bëre samedi bët set Gris 2 mel ni kon ñoom daal fi mu nekk nii ah fa ñu toogee day loo ci mën a dégg moom ah yëngut dan na naa yëngut xaw ma nag fan la wan di mu jékki bëtam waaye xulle daal li may wax te di ko tëjee mooy Franc ak waa Parcelles mbooloo nañu xam ne ñoom ñëpp ku ci nekk rek am na lu leen boole woon te am na ay moment ay moment yoo xam ne dundoon nañu ko mu neex lool moment yi nga dund nag mu neex bis bu moment yu metti yi ñëwee wala réeroo am la gën mooy ngeen toog waxtaan retrouver wu terrain d'entente jàmm na ñooy parce que nag ñoom ñëpp ñoo bokk parcelle te damay dégg ñu naan 100 pour 100 parcelle 1 ba 26 kon waxtaan a gën Franc choisir na dem feneen ñoom itam nañu fexe maanaam waxtaan ñoom ñëpp muy Franc ak ñoom Laurent ñoom Mame Less la nga xam ne nii moom lañ koy toppe bu dee mënuñu ko koo baal mu jox leen ko bu dee yoon ko ko teg bu ko defee Franc dem fa mu bëgg a dem ñoom ñu nekk ci la ñu nekk ndax nag olof ne na ànd neex na waaye boog wala boog lëngoo neex na xulle mais koo bàyyi mu dem ak ay mbaggam waaye lépp nañ koy def ci jàmm akuk rafetal du yàq dara jërë ngeen jëf kon dégg ngeen loolu moo dicté ci yëglikaay yi moo xam ah fi nga xam ne moo di sunu làmb la les arènes Equivox TV ak yeneen yëglikaay yëngutu ci làmb yëpp ba ca Lutte TV fu mu ci mën a doon wenn wennal tey wala saanu wenn saan la mooy li amoon démb fa nga xam ne mu doon ca stadium Iba Mar Diop di face to face boo xam ne neexoon na lool doxoon ci diggante Siteu ak Papa waaye balaa ñoo sori di dugg ci loolu fi ñu tëjee dañ ciy ñëwaat muy diggante Franc ak waa Parcelles mbooloo mu mel ni kon Laurent Gomis dégg ngeen li mu wax waaye li liñ ciy wax mooy man bokk li ma ciy wax en tant que acteur u làmb wala ku nekk ci biir làmb bokk ak ñoom milieu bi di yëngatu muy nañu fexe mbir mi rafet Franc la bu am carrière boo xam ne jàpp nañ ne war na war na carrière war na sori carrière nag boo ko war a def mu war a sori defe naa ne ah am na loo xam ne doo ko bëgg te itam franc man boog ci li ma xam nit ku ne da ngay wax gumi si yow mi xulle ca la nga xam xam naa ne xale la boo xam ne ah ci niñ koy gisee ñun joxe na cër loolu moom man gis naa ko ci moom waaye yaa ngi dégg waaye itam écrit ba mu nekk di parcelle mbooloo defe naa ne dañ ko sanc ci suma juumul bi ñu koy sañ bu ma fekkente ne jumu ma de Moussa Dioum bokkoon na ak ñi mel ni ki ñoom ci lu tax mu sànc ko parce que Moussa Dioum fa nekkoon nekk tête de ak ñoom Yanda ak mbër yu mel ni ki noonu ñoom Franc après ci lañ lukkiku ak yeneen xale ndax na ay jamono Yanda defe naa ne amoon na benn taxawaay boo xam ne ci làmb boobu yëkkati woon na turu parcelle mbooloo Moussa Dioum nekk kaw nekk seen mag ak yeneen xale ñoom Moussa Dioum numéro 2 ak yeneen i mbër Franc ñëw tamit nekk xale boo xam ne di wane boppam ñu encadré ko. xëy na nag ànd boo gis am na tàqali ko waaye li ñu wax rek mooy na rafet nañ ko fexe rafetal Franc am na droit dem jàmbaar Wrestling Academy yaa ngi dégg mais bu fekkente ne dem googu droit boobu mu am xëy na comme tamit mbir mi wàllum administratif la am na ay kayit yu lay tënk nañu fexe la nga xam ne mu di ay kayit bu fekkente ne mënuñoo waxtaan déggoo ci loo xam ne dañuy trouver terrain d'entente sur maanaam ci taabal ji la nga xam ne moom la kayit yi santaane ñoom ñaari parti yëpp ñu jëm koo matal muy côté franc ak ci côté parcelle euh, ci côté waa parcelle mbooloo bu ko defee ñu tàqali ko si jàmm te problème du am parce que nag ñoo bokk parcelle te gis nañ ne euh, franc bi muy def open press gis nañ mbër yu jóge parcelle mbooloo ñëw ndax Moussa Dioum numéro 2 ak yeneen mbër ñëw nañu jàppale si ko ko kon ni kon foofu problème bi warut a mën a bëri mais nag lépp li koy indi rek mooy bañ di waxtaan nañuy jiital waxtaan et puis tamit te di moytu yenn yi ndax am na ñoo xam ne bëgguñu diggante fu mu defaroo fu mu yàqoo rek la ñu bëgg yaa ngi dégg Franc nag it tey bu ko waa passé mbooloo wane ah wax dëgg yàlla wane nañ ko ci wane boo xam ne nii boobu ba tey defe naan defetu làmba amul waaye tamit fi mu dem muy Jàmbaar Wrestling Academy wala fa mu bëgg a dem yépp tam wax dëgg yàlla ku gis Franc guddi yi di nga xam ne gën naa yokk ci lu baree baree baree bari nit ki nag am nga droit ne fii ba mu neex la nga ne kat toxu laa bëgg su korogee nag la mu laaj na ko def bu ko defee nga mën a toxu jàmm na ñooy waaye ñu ngi wax rek ne parcelle comme ni ñu koy waxee Géejawaay Pikine Bawol ak feneen ak feneen ak feneen comme dañ naan cent pour cent cent pour cent nag du làmmiñ kese lañ koy waxee dañ koy dund ci ay xol loolu moo gën a wóor muy nuy waa parcelle yépp waaw parce que tey loolu si ñoom la jëm si woon ba tey keneen koo xam ne doomu parcelle la euh, di Papa Sow ah koo xam ne defe naa itam euh, tey mbëri parcelles yi ah euh, boo boo boo deful numéro itam di nga ko def numéro deux parce que loolu la fa wane actuellement loolu la yàlla dogal mu war a bëri ak Siteu koo xam ne tamit ah, defe naa tey fi nekk nii porté na drapeau drapeau jàmm gën porté bu am solo Pape Abdou Fall la woon leen démb xulle yaa nga fa woon Iba Mar Diop stade ba neex tarkitaa yi tarkindaa yi ñëw waa parcelle ñëw ah waxante ba am papa nag xool na Siteu dana ko ni ma la gisee liggéeyoo say tànk liggéey bi des na ah ba sax li naan siir mooy waat xamal na ko ne waaye loolu lépp waat mbër yàgg na wax ne incha allah rabbi nangam sangam wala billaay dinaa def nangam loolu ci la parce que loolu la bëgg loolu la gëm loo tax mu waxee noonu loolu dañ koy comprendre noonu parce que Papa Sow ku ko xam-xam ne mbër la boo xam ne wax dëgg yàlla côté communication moom ku ci discipline la et puis tamit sportif de haut niveau la ndax tey boo xoolee at bi mu am nekkatul xale bu ndaw ak fi mu nekk di compétir te boo ko gisee wala nga fekk muy entraîné di nga xam ne kii ku fonk lu muy def la loolu sérieux moo koy indi gëm-gëmam ak li mu yëg ci yaram moo tax mu waxee noonu waaye si tey itam mayu ko ko tax tontu na ko nee na ko papa xool ma ni ma njoole su ma la tàncee te boo ma teree jàll dama lay agressé lool mooy kon sarax ndongo njaay xulle mbaa mu jël ak doole mbaa mu nangook loxoom rek loolu la set fas ne def ak papa Sow muy combat boo xam ne kon Pape Abdou Fall lu la waaye mën a wax le premier août incha allah rabi yàlla nañ ko fekkete tal ko mais dina nekk benn date boo xam ne bu historique lay doon ndax tarkindaay ak waa Parcelles daje ca arène nationale ah non Pape Abdou Fall tëgg nga làmb wallaay tëgg nga làmb kon démb la woon ci arène fa nga xam ne moo doon stadium Iba Mar Diop ñu nuyu presse bi fa nekkoon yépp mais di nuyu le promoteur ak promoteur bi fa nekkoon yépp muy lu am solo parce que làmb itam li da cee bokk et puis li def tamit lu am solo que tey lam ci jaay ci ay moom xam naa lu muy soxla mais au moins faire d'organisation stade ba man na ko cee fay fay yeneen ak yeneen te muy loo xam ne innovation la muy loo am solo ba tey bu ñu continuer suba Mame la wala boog dimanche Mame Balla ak mbay guy gi hmm? ci SMU ba Maat Diouf Assane Ndiaye Baol production Saurou Fall ne na légèrement Mame Balla moom mooy favori wax na dëgg mooy favori de waxoon naa ko démb te loolu moo am mooy favori parce que nag moo njëkk a bëri te boo leen xoolee euh, ci côté victoire bëri le na ko yaa ngi dégg te daan na ñoo xam ñoo njëkk mbay ci làmb daan ba daan mbay Diouf te loolu rek dafa doy yaa ngi dégg bu yàggul daan na Tapha Mbeur yaakaar naa moom Mame Balla mi kon muy nekk mbër moo xam ne nii mooy favori waaye nag favori ça ne veut pas dire que yaay gagné ndax mbay guy gi xale la boo xam ne ku dogu la ku gëm lu muy def la actuellement kon làmb la joo xam ne daal dimanche ku dem stade Iba Mar Diop ah Assane Ndiaye fa lu neex a neex a neex drapeau Matar ba ministre des sports muy lu ama am solo ndax dégg nga dem ci Equivox Sidi Diop ne na day ñëw day teew kon lam jooju nar naa neex lool te dimanche jooju tamit arène nationale boobu mu nga yëngal ka fa yëngal mooy Jési production diggante Gris ak Abdou juuf muy combat boo xam ne histoire la ndax li muy li tax muy histoire Abdou Diouf la mu def face a bëri lam fa daan da daan ba daan magi giri mii muy giri Bordeaux kon defe naa foofu tamit mm, ki nga xam ne moom mooy Pape Aline bay jàpp na ne ci côté xeex giri deux wala boog Abdou Diouf ci xeex bi moom mooy moom la jox faveuru xeex bi waaye faveuru bëree bi ne na giri la waa xam naa daal loo ci mën a dégg hmm? ñoom ñaar ñëpp ay bërekat lañ ay xeexkat lañ waaye wax dëgg yàlla ah, damay jàpp ne sax man man sama gis-gisu bopp giri deux Abdou Diouf ko gën a bën a bëre loolu mooy li am parce que dafa am fu Abdou jaar am la mu wane Gris 2 tolloogul foofu parce que xale la donte tey yàlla may na ko ci fullaam ak faydam ak liggéeyam ak encadrement mu am niveau bi mu am di bëreeg niveau bii muy bëree parce que loolu liggéey koy maye moom xale la boo xam ne tamit am na xel am na expérience bu bëri waaye nag damay jàpp ne Abdou Diouf moo ko koy ëppale waaye loolu tekkiwul na da koy daan ndax làmb ja dool da cay feeñ bëri da am xeex da cay am gën da cay am te bis boobu bis bu mag lay doon ak production loolu di lu lu lu ama am solo Moussa Ndoye moom nee na bu ko kenn wax waxi ah Franc wala Diène Kaïré bokkul ci ay adversaires yoo xam ne programme na leen loolu la wax fils de Balla ak ki nga xam ne ni moom moo di général Malick de guerre ou de force kon kon waaw incha allah rabi yàlla na am dina am yàlla na am ak jàmm jamaïcain suba indi na bàyyi ma joon xoyantaan conférence de presse ah drapeau Papis Demba Cissé l'international muy amee ca Parcelles Assainies sieesu Amadou Ba ak jam production suñu rakk jooju ñu koy ñaanal tamit réussite waaye ku ne xam ne tey Bombardier xëy na tontu ci les arènes Balla Gaye 2 xamal na ko ne daal loolu la waaye mën a wax yow Balla hmm? ne na ko lépp lépp suuf bagaar de ne na ko xeex moom bu ci sax jëm ndax lu mu ci mën a doon boo ko defee man du la jik ndax Balla dim da ko waxoon ne ko duma yema la nar a dum Bombardier nag nee na ko moom duma mbër mu nuy àppal te nekk mu mbër moo xam ne dinaa reculer centimètre ne na ko duma ko ko reculer xalaatuma ko di dellu ginnaaw kon moo lay wan ne combat boobu tam xalaat naa rénkum jë bu amee jël ba fa lay amee ji xaw ma moo ma cay am ndax man na caa am xaw ma daan jël bu rëy ci am waaye ñaar yi moom xulle bii combat moom si sama gis-gisu bopp gëm naa ne du niil ko Bombardier Balla Gaye ñaari ma fit lañu ñaar ñuy dem lañu dañuy daje le 31 juillet incha allah yàlla nañ ko fekk te tal ko c'est un Papa Sow ba tey les arènes ñëw na ci ak lañ def dem arène nationale fa nga xam ne waa boog suñu Iba Mar ah kon loolu mooy li nga xam ni moo fi dikk tey Doudou Sané tamit les arènes ñëw na ci moment mois de juin bi neex la wu ci de Abou Ndour moo gëstu loolu boo xoolee ba enseré na ci quatre défaites par rapport ak mois de mai ñu génne ni mu wane woon boppam bu baax a baax ah làmb nag yaa de wéy dee baax sooy daan xaaral ñu daan la ndongolo Cheikh Tidiane ña mission ndongolo en mission commando sa samedi wax nañ dëgg les arènes loolu la wax ci xalima Aysatu Fay ña madame ña Aysatu Fay wax na dëgg de mission commando la jëm de moom dongul ndax dafa teglante ay defet muy lu metti ci moom mu jëm ci koo xam ne su ma jumulee lii mu moo war a nekk premier grand combat muy Cheikh Tidiane ña koo xam tamit dafa bëgg a wane boppam ci arène bi moom Cheikh Tidiane ndax ku ne gis na ne lit simple wane na ci boppam ba ñëpp xam ko combat yi mu dóor mu daanu sax la mujj def kon loo samedi am na combat bu dis bu koy xaar mbay yi ki ni moo fa jaar suñu frère làmb joo xam ne ju nara neex lay doon ci samedi ji hmm? ca Equivox TV nag la amoon sa Sadio Iba ma Diop di ngeen ko fa gis lépp lépp lépp ñoom Ngaaka Blindé ñoom Sidi di ñépp a nga fa woon mu nekkoon démb lu neex a neex a neex waaye tey ci kanam tuuti di ngeen am benn direct ak Idali ñu ngi dix-sept heures koña numéro 2 Ronaldinho mooy grand combat bi ah ak ka nga xam ne ni ak tournoi bi nga xam ne moom la boole war dox ci diggante Yankaaw Kaaw Gourdé Caatu daaw Fall Albarka Kayre loolu fii lay am léegi ci kanam ak ñu ngi production idaale moom tam koy nuyu di ko ziar bu baax di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal journée boobu yàlla na ko réussir mercredi nag la amaat waaye nee naa ko rek liggéey rek ndax ba nga fa tëggee mercredi dafa réussir woon te incha allah rabbi nii lay demee parce que la muy tëgg a neex amateurs yi amateurs yi loolu la waaye mën a wax moom xam nga ne tournoi boobu faw ñu ñëw topp ko parce que tournoi bu jara bàyyi xel ndax tournoi quatre ku jël tournoi bi na la mbër yi bàyyi ndax gis naa ci ñoom koo xam ne nii ci seen biir kenn la ci nag xulli ci seen biir gis naa ci koo xam ne baax na dama koy kore du ma ci wax ba ca kanam xulle di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci di jox gaa yi dig daje ba suba ak jàmm insha allah rabbi di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñu suivre à travers Equivox TV di balu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu tamit ñi nga xam ne daal ñoom ñooy suñu mbokk yi ah suñu mbokk sama mbokk ak yaay yi dama leen fàtte parce que doomu ak yaay la te nit ku ne ah, bu dëkk teeru neex neex neex neex neex pour man ba nga fàtte fa nga jóge woon man boog ñaanuma ko yàlla chaque jour rek ak yaay mooy moom lay waaji di ko wàllee parce que fa laa ko fa lañ defee li baax ci man kon nag waa ak yaay maa ngi leen di nuyu di ci jiital samay waajur di ñaan sama sama waajur bu góor yàlla na yàlla guddal fanam sama waajur bu jigéen yàlla na ko yàlla xare aljana mais di nuyu tamit samay soxna maa ngi leen di béggee bu baax di leen ñaanal jàmm di nuyu sama ay goro xullee parce que tamit ku xalam jaayu ci ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu samay soxna su ma leen waxee xam nañu seen bopp maa leen di béggee bu baax di nuyu njaboot gi yépp di ñaanal ñëpp fu doomu ak nekk rek moo xam yaa ngi Sénégal nekk à l'étranger surtout ñu nekk à l'étranger rawatina ku mel ni Fallou Sène Ousmane Ndiaye Ibrahima Ngom ah ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ñëpp ñëpp euh, du su ma limee dinaa jum quoi mais fu doomu ak yaay nekk rek ah Pape Sène ñu ngi ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee di leen ñaanal parce que tamit ñooñu passé seen Sénégal dem bitim réew daanay doole ngir ak yaay maa ngi di béggee di nuyu oustaz fa nekk di jàngale alxuraan rawatina oustaz Arouna Tine maa ngi koy béggee bu baax a baax ak ki nga xam ne ni moom moo di suma xarit di taalibi sëñ Babacar Si di Ibra Tine wala boog Ibrahima Ndour taalibi sëñ Babacar Si ba ba pare sopp sëñ Fallou Séri Jaynaba Diouf ci ak Ibrahima maa ngi lay béggee bu baax a baax a baax a baax di nuyu doomu ak yaay yëpp di nuyu tamit les amis d'enfance wala samay amis d'enfance ku la di leen jox dig daje suba incha allah rabbi